Euh, Birahim Traoré ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi leen di ziar di leen euh, nuyu di leen fay. nga bokk ci pôle communication Jamra bokk tamit ci mbañ gàcc tey jii ngeen taxaw temm euh, fas yéene xeex li ngeen jàppee ne naka sudul noonu la ci série télévisée yu ñu nemmeeku jamono ji ci mim réew ñu bëggoon a xam tey jii plainte yi ngeen doon laam-laame fu ngeen ci toll. waaw comme ni nga ko xamee soxna si ñu ngi lay nuyu di la ziar Jamra dafa wara a déposer quatre plainte bu si njëkk moom mooy plainte bi bi nga xamante ne nii producteur yu Evenprod ñoo ngi koy produire ci série Infidèles hmm. donc ñu gis ne vraiment nekk na loo xamante ne nii dafa ñaawteef te ko mënta xayt foo ko mënta saytu rek fa la fa la yem hmm. di dawal yenn yen yenn yenn sketch yoo xamante ni doy doy waar boo xamante ni di ci génn ay saaga di ci génn ay yu kenn xamul donc loo xamante ni doy na waar boobu mooy plainte bu si njëkk mhm. donc deuxième plainte bi aussi ñoo ngi koy adressé ki nga xamante ne nii moom mooy euh, Marodi TV di monsieur Traoré balaa nga wax ci plainte bu euh, Marodi TV ñu descendi ci Evenpro comme euh, gis nañ ne ñaari yoon sax moom ngeen ko adressé benn plainte mu mel ni mhm. dañ leen di tànkamlu lan ngeen jàpp ne moom la ñuy def ci li ñuy persister ci seen yooyu ngeen jàpp ne ndaw yi wala sax sénégalais yi askan wi war ñu koo gis. waaw xam nga xam nga wa nga waa Evenprod ñoom euh, bii mooy seen deuxième ndax ndaxte njëkkoon nañ leen def euh, defaloon plainte ñu defal leen mise en demeure. Mhm. ñu ne leen léegi série bi dafa am heure bu muy daw. Mhm. alors ñu yaakaar ne fa lañ yem parce que mise en demeure soo ko soo ko defee nit ki moom mooy wane ne yaa ngi koy bàyyi xel. Mhm. maanaam su defaatee leneen nga rëq ndigam. ñi yaakaar ne fa yem mais mu ñëw gënati wane ay jëf yu ñaaw jëf yoo xam ne saaga ndey si la bokk jëf yoo xamante ni wax ju salte si la bokk jëf yoo xamante ni suñ demee ba tey suñuy valeur ñi ñi ñuy foqarti ko di jël ay li nga xamante ni bëgguma ko wax sax muy ay ñaawteef ci ay appel vidéo ay yeneen ak yeneen di ko dawal yaakaar naa ne loolu lu ñaawa ñaawa ñaaw la mm. waaye nag ñun Jamra ba ñu ba yëgee ak ba ñu gisee li nga xamante ni moom mooy loolu dañ ne ñu toog benn yoon parce que lii nga xam ne ni ñoom ñoom la ñuy def gis nañ ne tey suñ leen ko suñ leen ci bàyyee nii. Mhm. mën na dem ba yàq société bi ndax ay ndaw ñu ngi seetaan série bi ak ñeneen ak ñeneen donc voilà moo taxaat aussi moo taxaat ñu bind ci ci ñaareelu plainte pour déposer waat ko. Mhm. ñu gis ne ay euh, fan a ngi nii gisuñu benn yoon série boobu ñu diffusé ko ndax dafa am euh, lu mu joteeg plainte goog ngeen di laam-laame. waaw bon ci ñun lu ñu yaakaar euh, foog naa ne wartu mën a jotee ñoom dara est-ce que du seen euh, saison bu njëkk moo jeex wala waaye euh, jàpp naa ne daal li nga xam ne moom moom moo am mooy ñoom waa waa waa waa Evenprod série bi nga xamante ni ñoo ngi koy dawal muy série infidèle am na ci yenn séquence yoo xamante ne nii heurte na heurte na Sénégalais yëpp alors comme nag séquence yooyu dafa heurte Sénégal yëpp ñun ñu jàpp ne tey am na ci loo xamante ni bëgg xaalis utam bës jarut ko. Mm-hmm. nañu xool ni mu gën a rafetee parce que ñun newuñ kenn bi mu bi mu dawal wala bu mu teg lii wala laa mais nañu nañu nañu dawal wala nañuy teg li nga xam ne nii dafay ànd ak suñuy valeur donc moom moo tax léegi nag ñun ñu ngi ñu ngi toog di xool. Mm-hmm. parce que comme dëkk bi am na yoon alors lu ñu yoon may dinañ ko def mooy saisir à qui de droit alors léegi nag ñoom aussi dinañ tranché mais bon mënaguñu wax ne lu ñu wax moom moo tax ñi arrêté. wala est-ce que du seen saison bu njëkk parce que déggooñ nañ ne ña am na beneen saison est-ce que du saison bu njëkk bi moom moo jeex wala donc de toute façon ñun ñu ngi toog di veiller di xool donc duñ leen may dara. Mhm, ngeen wax tamit yeneen plainte mën nañoo xam. waaw naka la deme waaw beneen plainte bi mu ngi jëm ci li nga xamante ni mooy waa producteur bu Marodi TV. Mhm. donc ñoom d'ailleurs amoon nañ sax euh, benn euh, benn croisée de fer euh, daaw. donc moom it mu mujjee woon ci ci mise en demeure alors gis nañ ne aussi ba ñu ñëwaatee ci série euh, Karma bu épisode épisode vingt neuf donc euh, bi nga xamante ne nii ñoo ngi ko dawal gis nañ ña jëfu ñaawteef yi nga xam ne moo ci am. Hmm. ay nit ak di fóonante am di def naka su dul noonu donc ñu jàpp ne alors loolu tamit euh, bokkul ak li nga xamante ni moom moo moom moo moom moo ànd ak sunu ak sunu valeur. Hmm. moo tax bañ ko gisee. alors ñëpp saisir ñi pour pour ñene ah yéen Jamra lu ngeen xaar pour wax si donc moo tax ñu jug ñene daal lu mel ni aussi du ñu bàyyi mu continuer parce que tamit lu mel ni suñ ko bàyyi mu continuer mun na dem bu jur leneen moo tax ñi jàpp ne comme ñoom defoon nañ amoon nañ amoon nañ ak waa Jamra euh, plaignant ñu ñëwaat ci deuxième seen seen beneen seen beneen kii seen beneen euh, euh, nu mu tudd bu ñu ooyee karma mm. série bu ñu ooyee karma ñi ñëw def ci yu mel ni donc aussi ñun dañuy dañuy jàpp ne ñii suñu leen bàyyee fu ñu bëgg a jëm maanaam euh, dina dina dina dina dina doy waar dina doy waar surtout nag ci ñi nga xamante ni moom mooy moom mooy ndaw ñi moo tax aussi ñu ne ñii duñ leen foog ñu porter leen pour li nga xam ne moom la ñuy def ñun comme li ñuy wax chaque jour dañ koy faral di wax ñun bañu ku kuy dawal ay série parce que am na ay série yu bëri yu fi daw loolu ñu am kenn kenn tegul ci baaraam wala kenn waxul ci mais li nga xamante ni daal moom moo am mooy série yi nga xam ne ñu ngi koy teg di ko dawal di si boole yenn yoo xam ne bokkul ak ñun lu ñu gëm wala bokkul ak ñun suñu diine ak yooyu donc ñun loolu la ñuy ñaawlu alors boobu moo nekk deuxième plainte troisième plainte bi ñëpp gis nañ ne nag am na benn producteur bu bees bu bu ñuy wax Sky TV. Mhm. boo xamante ne ni bu bees la parce que si ba mu ñëwee ci arène bi yàggul alors mu ngi dawal euh, benn série bu ñuy wax neegu sëy ñu gis ci lu ñaaw a ñaaw a ñaaw a ñaaw suñu demee ba tey sénégalais di mën a teg di dawal série di di jël jigéen ak góor ñuy futteeku di fóonante di tëdd ci kaw di raayante di def na ko sudu noonu mm-hmm. alors ñi jàpp nañ ne suñu réew mi valeurs yi ñoo ngi ko bëgg faxas mm-hmm. te ñun nag duñ ko nangu duñ ko nangu benn yoon moo tax ñun ak suñuy alliés yu yu toll quarante huit alliés mm-hmm. dañ ne ñii suñ leen seetaanee danañ yàq suñu ndaw danañ yàq société bi moo tax euh, duñ leen bàyyi benn yoon yu mel ni ñu koy ñu koy ñu koy dawal ci li nga xamante ni moom mooy ci télé ci ci télévision yi wala ci ci ci internet bi. Mhm. moo tax euh, déposé nañ foofu aussi plainte euh, bu mujj bi aussi moom mooy waa kanal Horizon gis nañ benn benn série bu bu ñuy ooyee bon bu bu boo xam ne dañ ko jagleel xale yi donc muy ñu koy ooyee Nicolas Déon. Mhm. bu Canal Horizon donc tamit gis nañ yu ñu fay def yëfu ngóor jigéen di fóonante ak euh, maanaam mbiru mbiru mbiru mbiru ngóor jigéen laa koy mën a wax yëpp di fa xew donc ñeneen nag ñii suñ leen lii foog ñu jug ci moo tax ñu jug ci ne danañ bind plainte adresse ki nga xamante ni mooy CNRA ak ki nga xamante ni mooy la procureur. tey jii ñu gis ne CNRA euh, euh, saa su nekk da ngeen koy saisir te it balaa ñoo dégg seeneera dafa fekk organisation yu mel ni yéen ñoo jóg ndax jàpp ngeen ne moo ngi def liggéeyam nu mu waree di saytu wayt di veiller. waaw ñin comme li ñu wax ñin CNRA def liggéeyam nu mu waree ak nu mu nu mu warewul ñun jàpp ne ñun Jamra ñun danañ continuer di def suñu liggéey hmm. waaye nag CNRA euh, am na ci part de responsabilité parce que tey soo demee ba askan wi léegi koo koo wax rek mu ngi la ana waa ana CNRA ana CNRA kon nag jàpp nañ ne naam ñoom ñu ngi def seen liggéey mais des na parce que tey lii ni xew ñoom ñooñu ko gën a xam hmm. ñoom waruñu woon xaar sax ñun ñuy déposer plainte ñoom ñoo waroon a saisir directement dal si kaw gars yi ne lii ngeen di def teguwul ci yoon rëq seen di xaar ay organisation yu mel ni Jamra di déposer ay plainte pour wax ci li nga xam ne mooy ñaawtee fii dañuy jàpp na liggéeyu CNRA xaw na des hmm. xaw na des waaye nag mu de mu xaw a des wala des nag yooyu ñun Jamra ñun tooguñ xaar su desee su xawee des ñun Jamra dinañ attaqué su desul dinañ attaqué l'essentiel li ci am solo mooy que CNRA war nañ mën a xam ne dafa am luñ leen fi tegee hmm. mën a xaar euh, li nga xamante ni mooy organisation yu mel ni Jamra dem bay dem bay déglu ay nit wala di gis di mën a déposer plainte loolu dañ koy ñaawul bu baax a baax. mu mel ni askan wi euh, dafa mel ni série yooyu ngeen di ngañ moo leen ñor ndax boo gisee seen nombre de vue ci euh, internet bi dafa mel ni moom rek la ñu ñu di seetaan euh, tey ngeen amal ban jàngat ci loolu. waaw soo xoolee xam nga ñu koy gis nga nag ñuy seetaan série yi ñoom suñu paree ñam ñooy mujj obligé waat ñëw saisiraat Jamra ne ah Jamra yéen de kanaa yëgu leen lu xew wala gisu leen lu xew waaye ñun jàpp nañ ne li ci am solo mooy que nit ki munoo ko tere mu seetaan. Hmm. parce que nit ki moom moom moom mooy kiw boppam munoo ko tere mu seetaan mais su seetaanee dafa am lu ñu lu ñu dawal lu ñu teg lu ñu teg ci ci ci ci chaîne bi alors ñun nag léegi nag sunu problème mooy lu ñu teg noonu naka la ñuy fexe ba buñ ko teg parce que suñ gisul ñu teg ko duñ ko seetaan hmm. mais suñ ko tegee danañ ko seetaan am na ñoo xam ne kumpa gi moo leen ciy rey parce que ku ku mel ni man wala keneen mën na toog ah seetaan nga série bi lii de diw ak diw de ñu ngi doon fóonante diw ak diw de lii la ko wax lee la ko wax alors da ngay ñëpp xam nañu ne sénégalais dañ bañ kumpa ñu déggee ne dara mu ngi xaw automatiquement dañ koy seetaani moo tax te moo tax nga gis seen vues yu bëri yëpp parce que li li ñaaw yi ci xew ñu bëri am na ñu bëri du ma ne ñëpp mais am na ñu bëri information yi ñu ciy dégg wala liñ ci gis moom moo tax ñuy jéem a dem di gëstu lan lan moo xew hmm. donc ñooñu ñun mënuñ ñoom dara li xëy na lu ñu mun mooy ñu fexe ba nga xamante ne nii lu ñuy li ñuy teg ci ci ci télé ci ci télé yi ak li nga xam ne moom la ñuy teg ci réseau sociaux yi ñu segg ko ba nga xamante ni lenn loo xam ne lu ñaaw du ci mën a am. kon daal yéen segg daal moo leen gënal waxu leen euh, jamono ji ñu dakkal euh, yooyu la série mais nañ ko segg. ah bien sûr de jamono war nañ ko mën en tout cas képp ku li nga xam ne nii lu bon la lu jëfewut lu jëppowut ak ak suñuy valeur dañuy wax ñu teg ñu effacé ko maintenant nag ñi nga xam ne xëy na ñu ngi ci yoon bi ñu ngi ci yoon bi hmm. ñoom nañu ñu xam ne Sénégal dafa am ay valeur réew mi dafa am dafa am nu mu tëddee hmm. réew réew réewu Cheikh Ahmadou Bamba réewu El Hadj Malick réewu Boukounta Ndiassane Cheikh Al Islam am nga ak sunu sunu sunu sunu dëkkandoo yi di le euh, le les catholiques ak ñeneen ak ñeneen donc am na loo xam ne ñun mënuñ ko seetaan moo tax képp ku bëgg a ñëw di di di di def loo xamante ni nii àndut ak ak li nga xam ne moom mooy sunu valeur ñi dañuy taxaw xeex ko moo xam ak luñ ci mënta ko jëlee mais duñ duñ duñ duñ toog seetaan ko benn yoon. plainte yi ndax déposé nañ leen ba pare. waaw plainte yi comme ni nga ko xamee bind nañ plainte yëpp ba pare avec euh, ak suñuy avocat alors euh, ak ñi nga xam ne mooy suñu partenaire Babacar euh, euh, Diagne di président CNRA saisir nañ ko d'ailleurs dafa dem Niger saytu foofu élection yi nga xam ne moom moo fay am mais nag nee nañu incha allah su ñibbisee dee lundi dinañ dinañ dinañ toog ak moom dinañ dinañ ko jox dinañ ko dinañ ko jox plainte bi suñ fa jógee aussi dañuy attaquer directement dem fi nga xamante ni moom mooy tribunal saisir ki nga xamante ni le procureur ak CNRA euh, donc loolu yëpp dañ ci ànd ak suñuy avocat dañ ci ànd aussi ak suñuy partenaires yi nga xam ne ñoo nekk ci combat bi di waa AIS e ak euh, ak ñeneen ak ñeneen fooy suma limee juum donc voilà léegi nag ñu ngi déglu Babacar moom nee dina ñib si altine incha allah dinañ ko dinañ fa dem euh, dugal plainte bi. yéen ngi doon yëglu wax ne ngeen amal doxu ñaxtu ndax ba tey yéen a ngi ko jàpp. waaw comme ni nga ko xamee réew mi actuellement dafa nekk ci. li ñuy wax guddi gu ba set jotagul parce que euh, pandémie di Covid 19 dafa lebbe réew mi te ñëpp gis nañ ne lépp lu jëm ci rassemblement dañ ko interdire <laughs> alors que mars ko wax mars da wax rassemblement et tout donc pour le moment ak situation bi nga xam ne réew mi fa la toll ñu ngi tegagum suñ baaraam euh, defaguñu dara xalaataguñu defagum dara tant que yi nga xam ne levé guñ ko donc voilà pour le moment daal comme dañu nekk ci corona donc di dégluwaat euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy. wa ministère de la santé donc ba heure bi nga xamante ni xëy na jàpp nañ ne war nañ mën a wàcc sur le terrain def marche te du am jàngoor du am lenn loo xamante ni xëy na dina mën a eh, eh, yokk wala eh, li nga xamante ni mooy tax corona bi ñu indi ko fi mhm. donc ñi mën ko effacer tey eh, njiitu réew mi mu eh, sàkku ci ñi nga xam ne ñooy autorité publique yi ñu am benn taxawaay gi ñu am ci eh, lii di presse en ligne te présent en ligne gis nañ ne bokk na ci fi nga xam ne ñu bëri fa la ñuy seetaane yooyu la série tey lan moo ci seen xalaat. waa effectivement ñun dañuy rafetlu d'abord euh, dogal boobu mu jël parce que xëy na yéex na ko yéex na ko jol xam nga gars yi dañuy ñi dañuy jàpp ne xëy na télé yi ñoo garaaw mais li gën a garaaw sax weesu na doon télé yi parce que soo xoolee tey réseaux sociaux yi nga xam ne moom moo gën a yomb seetaan que leneen euh, alors euh, ñu bëri da ngay gis ne sax dañuy jël lu baax liñ ne tel si télé ba lañ koy lañ koy yóbbu lu bon li ñu ci YouTube ba lañ koy yóbbu alors que léegi yàlla def na YouTube comme léegi télé yi dañ ciy veillé ba nga xamante ni lépp luñ ciy def lu ñaaw la alors euh, nit ki mun nañ ko procureur mën na ko mën na ko saisir donc su ko defee mu mu arrêté ko alors ñu jàpp ne dogal bi mu jël ci mbiru réseaux sociaux yi lu am solo la. Mm. parce que tamit euh, yaakaar naa yaakaar nañ ne euh, suñ ko bàyyi woon nii mu mu mu mu continuer dina dina dina lëmbe àddina. Birahim Traoré ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. merci beaucoup maa leen di jaajëfal man it baax.